mooy li mu wax ne amul poids politique d'accord ma mais soo xoolee ñoom nekk nañ ci nguuru PS. Hmm. avec Mbaye est-ce que seen xam-xam bàyyiwu leen fa. mais dunguru c'est trop dire parce que man waxuma dunguru man waxee moom moo dunguru mais dama ne. Hmm. ñoom mën naa ne c'est des transhumants éternels. c'est du ah yow waxati nga beneen révélation bu gën a rëy mooy lan mooy lan non lii moom tënkee mooy lan ah, lii moom lii moom mooy lan xam nga hmm. les faits. nu montre ça kenn man créé ma mooy lan ñoom bokk nañ si nguuru PS PS jóge fi Ablaye Wade ñëw te bi PS yi daanu ñoo ngi woon biir PS Ablaye Wade ñëw ñoom ñu viré dem fekk ji Ablaye Wade. ah, ah Ablaye Wade ba ci nguuru Ablaye Wade bi muy daanu quitté wuñu fa. est-ce que comprendre bu fekkoon dañuy quitté avant muy daanu sax ok ba ci nguuru Ablaye Wade bi muy daanu quitté wuñu fa ñoo ngi fa. Macky Sall yéeg bi Macky Sall yéegee ñu riisuwaat demaat duggaat si nguuru si si nguuru Macky Sall te effectivement bu fi beneen nguur jugee waatal bu fi Macky la jugee keneen ñëw ils vont riisuwaat rek dem toog.